yàlla ndax waxtu liggéey bu jotee da nga koy jox akam ba mu jeex bu liggéey ba paree bu boobaa na nga doog a ñëwaat waxtaan ak askan waaye buy ñëwoon ba fii wax ak ni population bi ak nit ñi ci biir département de

nga yem ak sa morom bi nek fenen lolo tax ñu am ñaari ministère ci gouvernement bi benn bi yor infrastructure na ñu bolé ci désenclavement benen bi doon ministère bo xamni équité territoriale la yor ak équité sociale muy lo xamni bo tuddé tuddee Macky Sall wala boko xalaté sax lolu day ñëwaat ci yow.

Monsieur les maires, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, programme B, programme am programme B, permettre Je PSD programme spécial de désenclavement Warna tax jambat yi nga xamni amna comme bu melni yoon bo xamni yeena koy jambat depuis juroom ñaar fukki at yeena ko wax fi di gox bo xamanteni li fi jógee bari na ci walu kom kom ci walu mbay deug la électricité amna effort yu mucc ay biñu fi def

Je rassurer rassuré au nom du président de la République. La Tchawa, mmh. il qui nous a gagné. Il a 10 km et 2000, km. Il y a un an. Le discours, il y a un ak jàmm. waaw waaw. ba déwén ak jàmm. ba déwén ak jàmm. incha allah ndax président sant mooy liggéey. waaw yu ànd ak tekk ak tekkaar. waaw. Mansour du def. ci lañ nekk. kon dinañu lancé travaux yi tey liggéey bi dina tàmbali ci nu mu gën a gaawee. ba déwén ci waxtu wi. Eh incha ñu ñaan yàlla nag mu defal ñu jàmm. Mm-hmm.